bu ñuy jige si nag si la ñu wax ni suñu oto jàdd ci ville bi nag daanaka kenn gisatu fi kenn ay takk der rek la ñuy gis oto yi ak ñi nga xamante ne dañuy dox amuñu droit jéggi ci restaurant bi ñoom ñu ngi waajal ngir tëj ngir aaru on est obligé de fermer vraiment pour mën a parce que aussi gars yi fi ñibbi ñeneen ñi dafa sori te vraiment pour ñu génn Dakar déjà problème la tey nag nit ñi dañu war a wante magasin yëpp a yi ñu ngi toog seen buntu boutique di muñ ki nga xamante ni nag ay légumes lay jaay ci mbedd mi moom lu muy ñaan rek mooy lépp teguwaat ci yoon. tiitu de ndax jàmm rek laay wër wax dëgg yàlla jàmm dafee yàgg jàmm dong laay wër. wër ñu baaree fii yëpp tiital la. ah tiitu ma de wax dëgg yàlla ndax damaa yaakaar ne xanaa Sénégal jàmm dong fi fii nag ci kafe bi ki nga xamante ni moo fi nekk dafa woo ñaari nit ngir kaaraangeem mu ne ñoom bëgguñu dara ci li nga xamante ni moo xew. métti nañu trop parce que xëy war a dem liggéey am looyo bu sa njaboot nga ñëw fi ngay liggéey tej sa place loolu neexul kenn. place indépendance nag police moom dafay jéem a wéyal dal ak yoon wante dal ak yoon bu ñu teg daanaka moom moo dugal dëkkuwaay bi yëpp ci njàqare.